waaw Mbaye Ndiaye se tourne kon vers Boy Niang ak Siteu jëm ci combat yoo xamante ni bëgg na koo amal mm, merci beaucoup Chérif euh, ci pàcc bu njëkk bi yëglekaay li ñu xëyee ci kanam euh, dinañ ci waxaat tuuti alors Mortala dañuy taxaw ci li xew bu fële ca Ndar muy euh, ay nit yu ñàkk seen bakken ñu doon jéem a jël gaal dem fële ca Europe wax ji mooy euh, li ñu fa wàññi li mu doomu aadama ñi ñàkk seen bakkan ak ñi ñu ne ñoom ñoo ci jot rëcc ce chiffre là est très très loin de du nombre bi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal bi ndax on parle de plus de 300 amoon na ak accalmie ci li ñu jàpp ndax dafa seddoon jamono ji mais gis nañ ni yëf yi tàmbali waat na et puis ça a été un choc hier mortel. waaw naat naata euh, plateau bi euh, lenn rek lañ fi dafagul maanaam. toog fii jooy suñuy rangoñ tuuru loolu rek lañ fi defagul mais euh, suñuy xol euh, suñuy kër maanaam suñu xol day day day sañe ci jooy la dëkk parce que lii kenn mënu koo xool euh, te vraiment doo am lu la mat metti ginnaaw nag ba ñu suñu xel damee vraiment ci victime yi suñu xel di dem ci seeni famille di leen ko jaale ak ñaata yoon lañ fi toog di jaale Euh, depuis année bi depuis le début de l'année ñaata yoon lañu fi toog saa yu ñu waxee drame de l'immigration ñu toog fii jaale famille yi mastawu euh, njaboot gi euh, jooy sax ci xol ñi nga xam ni ñoo génn àdduna ñaata yoon lañ ko fi def mais teewul ça continue ça continue te pour man dama jàpp ni nous sommes tous responsables nous sommes tous responsables te responsabilité bi ñu gàddu ki ci ëpp responsabilité nag mooy le président de la république politique yi ils sont responsables aussi ah mais ki ci ëpp responsabilité mooy le président de la république ndax moom la ñu dénk moom la ñu dénk suñu réew mi mu war a fexe ba ndaw ñi euh, désespoir bi ñu gàddu di daw ak moom bëgg a dem Espagne désespoir boobu des ci seen euh, des ci seen tànk yi ba ñu toog seen kër waaye malheureusement loolu amul li fi am mooy Euh, président bi ci boppam mooy woote dialogue ñu koy euh, njoow toog ci njoowaan ñu koy euh, woyal ay maamam fële ca jam ñaajo ci dialogue bi comme ni mu amee woon est-ce que dañu war a continuer ci loolu ñu nekk ci di wax politique politique politique te amul yenn pexe yu nuy jël pour fu suñuy ndaw yi est-ce que ci loolu la ñu war a dëkkee Sénégal est-ce que loolu la ñu yéene askanu Sénégal muy politique ñëpp nag du moom rek xëy na moom la ñu dénk mais politique yëpp xoolal tey ci situation Sénégal fi mu toll ñu waroon waxtaane problème yi nga xam ni sénégalais yi ñu ngi koy dund mais ci lan la ñuy waxtaane depuis Sénégal mooy pays boo xam ni depuis dix jours depuis depuis xaw ma euh, dix jours yi nii passé rek on ne parle que de meilleur délai plus bref délai mais ay baatu français yoo xam ni dañ ci bëgg a toog bis bu nu yeewoo plus bref délai meilleur délai mais ba kañ euh, alors que Euh, pendant ce temps ay xale ñi ngi dee ci géej gi te nombre bi maari day taali mën na yokk ndax 300 la ñu woon gaal gi waaw ci biir gaal gi kenn ñaanu ko yàlla mais mën na yokk malheureusement te constat amer la pour man réew mi tey dafa war a sëngéem parce que nombre bi jéggi na doye ku fi waxati sax ay waxi dialogue politique ak ay eh, vraiment kenn war la bañ la déglu parce que lii dafa metti ci xol les familles à Joal tey famille yooyu kenn xamul lu ñu fanaane ak lu ñu yeewoo tey jii kenn xamu ko ña nekk ndar moom waxi noppi parce que yeewu rek euh, da war a dem géej euh, daan fa sa doole di gis di sempi ay néew mais boo demee sa kër doo añ doo reer pour man dans ce pays là il faut qu'on en arrive à trucider la bête pour un peu réveiller lu peu l'humain qui sommeille parce que foofu la ñu toll dafa mel ni Euh, ñun euh, wàllu nite euh, léegi sunu yoon nekku ci on banalise les morts te lii 45 morts selon le gouverneur pour man dafa jéggi doyo te ñun ñëpp war na nañu dellu siwaat xel yi mm. ñu xalaat ndaw ñi xalaat euh, joxaat leen espoir ñu mën a yaakaar seen réew euh, euh, Alaaji Malick Mortala wax na ko dañoo dem sax ba mel ni léegi yëf yi dafa banaal maanaam bu ñu déggee ni ay xale ñàkk nañ seen bakken ci géej gi sax peut-être dañ ciy wax quelques minutes ñu fàtte et li gën a metti mooy chiffres yi mënuñoo fexe ba am xayma boobu ba léegi ñu ngi wax maanaam nañ naan ñi dañoo faatu ñi porté disparu mais xayma ci bopp koom-koom lañ li des ci géej gi soxna naata kenn xamul nu mu toll li des ci waaxi Nouadhibou yi bari na li des ci yeneen waax yi kenn xamul nu mu toll euh, drame bi foo ko natt weesu na ko je pense que tey bu ñu jëloon suñu ay caméra dem ci yenn dëkk yi doo sori sax Bargny gi rek ngay dugg <coughs> wala nga dem Kayar wala nga dem Thiaroye sur Mer wala nga dem Fass Boye wala nga dem Diogo wala nga dem Mbour euh, wala nga dem Jiwaalo pratiquement c'est toutes les villes côtières. toutes les localités côtières ñoom ñëpp dëkk yi nga xam ne yëpp dañu nekk ci booru géej gi te nga xam ne euh, seen activité moom mooy napp gi. Mm. Euh, li ci des ci biir géej gi kenn xamul nu mu toll. déjà ci mois de janvier bi passé rek la nit ñi commencé woon encore di waxaat ci mbir mi ndax boobu ñu ngi doon wax ni il y avait plus de euh, trente deux mille personnes yu débarqué woon dans les îles Canaries. ñi ngi débar ñi ngi doon démontrer que ne lu mat six cent personnes ñàkkoon nañu seen bakkan alors boo xoolee période boobu mooy janvier jàpp février lan moo ci gën a euh, euh, màndargaal géej gi mooy sedd bu metti sedd bu metti ngelaw ak euh, visibilité bu nga xam ne gis nga ko fan yi ni mu demee mais terewul à chaque fois Euh, xale yi ñu ngi brave la mer. kenn mënu leen téye je pense que bu dee wax moo leen doon téye toog nañu lu nekk wax nañ ko sensibilisation bu nekk def nañ ko mais taxul xale yi toog parce pourquoi parce que désespoir moo doy war dem ba amatoo yaakaar war a toll ci tekki tekki woo war a toll ci faj bu mu gàcce yow sa bopp nga doon gàcce yow ci sa bopp dina puus nit mu def lu nga xam ne amaana bugg ko def parce que danaan sama dund gi dee moo ko gën rien ne justifie li nga xam ne moom la xale yi def mais on essaie de comprendre ce qui se passe et c'est quoi c'est que tey ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk ci boori waax yi ñu ci bari ay nappkat lañu tey napp gi doxatul pour nga am jën il faut nga dem dans les profondeurs de la mer pour mun a am tuuti jën pourquoi parce que les licences de pêche gis nañu drame yi nga xam ne def na ko les chalutiers li nga xam ne moom la ñuy pêcher tax na ba tey la raréfaction de la ressource euh, dem na ba ñoom mënatuñu am sax yaboy bu ñu dundee. Mm. waxuma waxumalaak di di di di ci tedd. loolu dem na ba tey gaal gi nga xam ne moom nga doon jël di ko nappe ji da ngay xool noo koy façonné pour wut ci koom-koom dugal ci ay nit yóbbu leen ñu fay la te loolu c'est un drame qui foo ko natt weesu na ko et ça c'est quoi naata c'est l'échec de nos politiques il faut le dire les politiques d'emploi des jeunes politique économique bi. Mm. Euh, pour politique sociale loolu yëpp dafa dafa am échec ba nga xam ne tey jii l'horizon et bouché gars yi xale yi gisatuñu dara lu nga xam ne mun na leen téye ci réew mi ñu ni nañu dem daani suñu doole nañu dem tenter suñu sens ailleurs pour jéem a am dara lu nga xam ne moom la ñuy def ñu fàttali ni le 9 novembre euh, bële passé président de la république jëloon na ay matuwaay woote woon nañu waxtaan ci ay mesures sécuritaire ay mesures économique ay d'urgence ay mesures yu nga xam ne pour jéem a stopper la la spirale mm, mm. de de de l'immigration mais malheureusement ça n'a pas servi à grand chose et ce qui se passe à Saint-Louis est, est dramatique mm. euh, mort xëy na dañuy rafet njort rek dañuy rafet njort rek mais bu ñu la nee 327 ñoo ci nekkoon euh, repêché nañ ci vingt kenn ki dee na mu des dix neuf il vingt vingt quatre morts. au fur et à mesure que tey jii ñuy continuer recherche yi. malheureusement. ah on parle de cinquante. Walf Quotidien parle bi nga xam ne moo jiite. comité comité voilà de crise bi ñu fa taxawal moom mujjee am. mooy 24 euh, yi je pense. 24 yi moom mooy officiellement li ñu mujjee am mais c' est clair que tey jii bu ñu xëyee dinañu am yeneen. Hmm. parce que ñi nga xam ne gisaguñ leen bari nañu. et c' est encore domage mais ñuy ñuy ñaax rek encore xale yi. pour hmm. terminer naata. Hmm. période bi du période du tukki du période du jël géej. comme mënoo leen ni toogal ñu toog amul période sax nag fa déet déet naata mënoo leen ni toogal ñu toog mënoo ni kenn toogal mu toog koo ni toogal mun la lu may jàpp mais nga ni ko laa yaa xaytuma laa ni géej gi waxtu wi sedd na yëngatu na lëndëm na metti na toog leen li laay war a suuli bu période bi gën a favorable sax ngeen risqué waat seen life mais instant bi moom dem ci géej gi moom tu as très peu de chance nga egg fi nga jëm. Mm-hmm. ah bon je pense que dans cette histoire là lépp lu ñu fi wax on se répète ah. parce que yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko dénoncer par contre lu ma euh, d'accord mooy qu'on essaie de justifier euh, de trouver des justificatifs aussi à ces jeunes qui euh, prennent ces pirogues là parce que li ñuy def nii ay ay xale lañ seen moyenne d'âge c'est dafa yemamaay ay nit la ñoo xamee ni tey jii suñu waxee mm-hmm. désespoir dañoo désespéré ba di tenter aventure yi man loolu mënuma ko d'accord parce que mënoo nekk xale nekk ci sa diggu doole désespéré ba mu lay jaral ngay ngay jël li non échec yi nga xamee ni suñu politique yi def nañ ko en matière de jeunesse loolu. Hmm. on n'en parle pas loolu ñëpp hmm. xam na ni lu am la mais est-ce que war na tax ñuy réagir de cette façon. quand on parle de su suñ koy méngaleeg régime mais là on est en face un régime boo xamee ni. pare na ci ma ngay dem beneen mi ngi ñëw yeneen horizon dina ubbeeku pourquoi naka lañu ñu mën a jàppee ni que fii mënatuma fi am dara dara dara dara ba je préfère aller mourir man je peux pas comprendre lan moo ko mën a justifier tout le monde est coupable Mor mi ngi koy wax mais pas que les politiques ou bien ceux qui euh, déroulent euh, notre politique la société la non la société parce que soo ñëwee parce que soo parce que soo ñëwee tamit sa doom bëgg wax la ni dafa bëgg jël gaal yi dem tukki nga nga nga nga jàppale ko jox ko ci xaalis dajaleel ko mais euh, kooku tamit su su ñàkkee bakkanam ci géej gi tu une part de responsabilité li ñu wax réew mi ku fi gaañu ku fi décédé état am na ci part de responsabilité ci genre situation yi mais yow tamit sa njaboot toi en personne d'abord yow tamit sa njaboot am nga ci part de responsabilité parce que ñoo xamee ni lii kenn rafetlu ko ñëpp dañ di wax toogal toogal mais jamais du ñu toog parce que dañuy dem te li ñuy dem di fekk ji mirage la personne ne dit que suñu génnee dem foofu dañuy tekki fii nii suñu réew yi ñëpp xam nañ ni que nous sommes nous som des pays su développés du ñu New York du ñu Las Vegas du ñu Paris du ñu k amuñu kii boobu mais foog ku fi ñëw ku bëgg am au moins loo suturul il faut te donner les moyens parce que kenn waxul ni fii amul am nañ ay xoslumaan yoo xamee ni yàgg nañ fi xoslu dem bay tekki ci réew mi am na sax ay dëkk yoo xamee am na ay nu mu traité ñu nekk ci pays limitrophes yi dañuy jóge seen dëkk ñëw fii Sénégal di dund bañ am na ñoo xamee ni dañuy dem di ci tekki parce que dañuy def ay liggéey yoo xamee ni dafa am ñoo xamee ni bëgguñu ko def fii gis nañ fi ñoo xamee ni dañuy am liggéey mais li ñuy gañe fii doyu leen mais dañuy jël gaal yi yéeg ci dem pour avoir plus pour topp benn mirage boo xamee ni tamit euh, kenn xamul ni ndax da nga koy jot mais après euh, c'est c'est c'est assez risque c'est péril dañu am liggéey Euh, bàyyi ko fi dem am nit yu nga xam dañu am teraanga jaay ko dugg ci gaal on voit que nit ñi sax li ñu def ñoo ko tey et puis des euh, ni comme ni ñu koy waxee tollooguñu fu ñuy amee bay ñàkk euh, boo ñooñu tamit on se demande c'est la responsabilité de qui ñi nga xam ne daanaka amaguñu sax ñaar fukki at di dugg ci gaal yooyu noonu di dem te ñu si bëri malheureusement ci géej gi la ñuy des malheureusement donc ginnaaw bi ñu tiis loolu xew fële ca Saint-Louis muy encore beneen drame bu ñëw yokk ci liñ dund ci année bi malheureusement on a pas les statistiques non, mais nos compatriotes yi nga xamante ni des nañ ci géej gi disparaître nañ parce que des familles te diront ko ñoom gisatuñ ñi nga xamante ni ñoom sooy mbokk bin tàggoo wala ñenn ñi aussi buñ ci dugg duñ tàggoo moo tax duñ ne rek famille parce que am na ñoo xam ne ñooy jël seeni responsabilité dem duñ xam ci lu nekk et fi ñuy joxoñee baaraamu tuuma mooy état bi dara mënut a justifier jël gaal parce que on peut considérer ça comme xaru parce que booy dem xamoo te amut période muy 365 jours sur 365 moom amut nit ki lu ko war a mën a jaral muy jël yooyu mais fi ñu waxee état bi mooy dañu jël lépp jox leen ko muy wàllu sécurité état bi am na ay renseignements. ñu ne marine doole joxoon na leen doole am nañ police am nañ gendarmerie. mais normalement gaal goo xamante yab na lu ñuy toll ci personne am na foo déparé. bu fekkente ni kon mën nañoo quitter code yi nii di dem te na ne force de défense et de sécurité yëgun ko kilifa yi yëgun ko foofu la ñuy joxoñee baaraamu tuuma état déjà parce que war naa freiner li nu mel lu wax ngeen ko fi sànq ndaje mi nga xam ne plusieurs fois bu conseil des ministres amee xanaa ñun kes nekkuñ fi ci Afrique fii rek ngay dégg yenn yi yi ngi fiy dégg mooy ay Soudan kii ay Libye réew yi nga xam dañoo nekk ci ay guerre ñu nekk ci ay foofu ngay gis vague yi nga xam dañuy jël ay gaal di jël ay ak di dem wala mel mais fii ñun rek te on n'est pas le seul pays côtier fi nga xam ne au contraire yeneen dëgg yi am na ñoo xam te dañu jóge ci yeneen réew ñëw fi di embarqué fi Sénégal donc mooy loo xamante ni yabayal la buñ yàpp euh, autorité Sénégal yi nga xam ñoom ñoo ci war a jël beneen bi tam mooy passeurs yi maanaam ñoom duñ ci dugg jël ay doomu jàmbur xamun gaal xamun nu ni dowale gaal dugal leen ci biir boobu ba léegi aussi est-ce que jël ñu xoolaat naka lañu def ba trafic de migrants bi ñu gën koo tara ba nga xamante ni passeurs yi maanaam ñiy dundee loolu bakkan doomu aadama état bi teg leen Sénégal foofu leen joxoñee baaraamatuuma état bi beneen bi tam mooy neen ko waxee maanaam yaakaar dafa fooro am réew c' est vrai que mënuñoo jox ñëppam xëywal nangam mais mën nga def ba nga xamante ni espoir voilà les conditions soient ni ay DER kii ay structures xool impact bi est ce que ña ña tax a jóg loola jox nañ leen ko loolu lépp aussi ab évaluation loo xamante ni war nañ koo def ba nga xamante ni quand donné qu'on nous de pétrole gaz boo xamante war naa dekk Sénégal réew mun mel noonu loolu war fee am gone yi war ñoo màbb di daw kay au dana war a des am yaakaar ne mbir bu ñëwee mais loolu li koy waral mooy transparence bonne gouvernance yooyu aussi ay politique loo xam dafa dafa c'est une réalité am réew aussi gone yi mënoo toog ñenn ñi ñu ne ñu ngi jël alal Sénégal di ko sàcc ñeneen ñi aussi parce que dañu considérer que c'est injuste yéen a fi sànq am na journal waaw paacoo boobu xam nga loolu xam nga loolu ah, réew moo xamante ne yow footballoo dem nga ci coupe d'Afrique déjà ñu éliminé ñu déjà gis nga leen éliminé ñu ñu ne ñu ngay séddoo loolu aussi neexul ci xool ci réew moo xamante ni ne dañoo war ressources yi dañ ko war a teg ci yoon ni ko kenn ci ministre doon waxee duñ ko paacoo dañ koy péncoo su ko defee quand nit ñi mën a xam ne que réew mi yoon fi mais bu réew moo xamante bu ñuy defee lu leen neex dara du leen fekk ñii di sàcc alal li Sénégal loolu mënut tax quand justice sociale am ba nga xamante ni comme lieu de sa de profité ngir bu demee ci dëkk tubaab yi ñu jox leen kayit ndax dañ naan man kat da voilà jàmm amu fa dan may dan may dan voilà dan may persécuté et cetera gars yi xam nañ période yi ni dem de ils savent que période yi ni dem ba nga xamante ni kon yàlla yi beneen bi tam comme encore une fois ni ko wax ci état mooy hmm. Afrique ñun nañ gën a am fulla tubaab yi buñ waree dem normalement booy war nañoo mën a dem jaar ci aéroport am ay kayit fii dem leen fii wakaam fi ni wutee visa yi gone yaa ngi ni pour nga am rendez-vous sax déjà beneen problème boo xamante am na ñu invité bi ñu fi am dina ci ñëwaat parce moom am na légitimité quand même pour en parler buñ waxee nag li nga xamante ni moo xew ci géej gi gis ngeen ko jën amatu fii boo demee ci code pêche yi gone yaa nga xamante ni dañuy taxawaal les pêcheurs amatu ci luñ jàpp nañ ci usine à glace yi ñu ngi tëjee ndax amatul jën hmm. bon les problèmes sont vraiment nombreux bëri na Mamadou Diop Thioune euh, yaa nga fee ñeneen ceeb baa nga yokk prix yaa nga yokk comme ni ngeen ko waxee man ci candidat yi nag par contre waaw foofu laa bëgg a taxaw hmm. Déthié Fall laa fi gis pour terminer voilà non pour terminer dama gis am na 19 candidats fi am fi Sénégal kenn laa fi gis mu def ci wax ci mu ñu ngi tudd Déthié Fall depuis loolu aussi beneen cas la moo lay wax ni comme ni nga wax les gens là c'est processus électoral baax naa conseil constitutionnel mais di wax ci problème yi nga xamante tamit Sénégal mi ngi koy dund am solo la benn candidat laa fi gis en tout cas mu wax li nga xamante ne mooy le drame bi nga xamante ne am na fi alors que lii c'est c'est extrêmement grave comme am na tey di leen dégg ñoom ñëpp ah, Chérif mm-hmm. ci ressources offshore dinañ ko dalal ci ñaareelu pàcc bi ñu jàll ci leneen un jour Sénégal un jour dans le monde